Touba mbokki jullit di mbokki taalibe yi déwénati def nañ ko at yu bari yal nañ ko yàgg a def mu ngi mel ni ñaar fukki fan ci weeru koor chaque jour da ngeen gis waa Touba Média da ngeen gis ñu am benn émission bu ñu amal fii ci place u Cheikh Sow Neex Soow place Cheikh Sow Neex Soow nag dafa naa ne bi ñu ñëwee ba léegi ñi ngi bëgg a dugg ci biir bëgg a gis seex mais mënuñoo gis seex ngir lan clients yi ñi ngi taxaw fii di jënd li nga xam ne si ni mooy euh, soow mi nga xam ne si ni moom la Cheikh saw Neex Soow di jaay seex nag li muy jaay dafa am qualité mais li muy jaay dafa neex mais li muy jaay dafa sell moo tax fenn fu ci nekk la nit di jóge di ñëw fii ci place am di ko jaay yaakaar naa kenn ku ci nekk ci ñoom fa nu jógee ak ñi ñu romb ci ay ñuy jaay soow bari na lool waaye nag li leen di neex ak li saf mooy jënde ko ci palaasu su saw neex soow am na ci ñoo xam si nan taxaw fii rek mu xat ñu ne Cheikh jaay ma yàgg fi lool loolu daf leen di neex ndax nag ci Sénégal lan nekk te ban ko dalee def ak léegi def naa yàgg na lool baax bi yombut man na ko ni xam nga ni lu baax yombul xaadim sama jigéen baa ngi nii defe naa at bu jot maag yow ñu waxtaan fii ci seex saw neex soow tey gis nga place bi ba ma ñëwee ba léegi maa ngi bëgg dugg mënu maa dugg lan nga may wax na ci lii yàlla nañ ko fekke at yu bari nag sama jigéen. amiin amiin amiin ñu ko ay at yu bëree bëri. ci barke naa Mohamed. Cheikh Sow lu ñu wax ci moom doyul barki Seydina Mouhamed seex baax na bëgg na nit yaatu na seex daal yal na yal ko yàlla lafal cat ci barke Cheikhou Khadim yaayam ja fa mu tëdd yal na suuf oyof ci kawam ci barke Seydina Mouhamed ñoom jibeeg ñoom Moussa place bi daal ñëpp a baax barke Serigne Touba Mbacke mënu ñëw nee na mi ngi ñaanal sunu yaay ja ajaratu Kumba Tall fee mu tëdd ci Daaru yal na ko yàlla doolu leer tasu ci barkeem waaye nag di sant ki nga xam si nag mooy jibi ak Moussa ñi ngi nekk ci biir damay wax naan seex entreprise la yor bi mu taxawalee liggéey bii da ko ànd ak i bokkam seex lu fi baayam bàyyi woon rek defe naa ne seex yokk na ko bokk yokk na ko bu baax tey boo est-ce que seex amul place sax bitim réew ndax defe naa ni tubaab ya soowum seex saw neex soow moom la ñuy naan loolu ma duggee ba ci biir dinaa ko laaj seex ndax seex boo nee ana seex ñu ne ma bitim réew ana seex mu ne ma nga Espagne ana seex mu ne ma nga Canada ana seex ñu ne mi ngi siin est-ce que demul ba ca seen waaye sax taxul fa entreprise bi di neex soow te yaakaar naa loolu am na solo yaakaar naa daal sama pël bii ah dama ne ku ko amul ku nekk danga ko wuti seex saw neex soow la référence. moom ku baax la. dëgg la man dama fi ñëw duma rek mu soow mi. jox ma jox la. Cheikh moom. waaw kenn amuk fayam. dëgg la wax dëgg yàlla lu wax si moom rek man nga ko waxal. dëgg la ndax Cheikh xam na ma bu baax xàmme na ma bu yow saa dañu ngéwélu jànkat yow maa ngi xam diisoo yaa ma tànk mi mbuur. waaw foo jógee ñëw si jënd soow. man Poulaye Baye Diop. Poulaye Baye Diop. waaw. li nga romb ci soow bari na de. waaw wala yow la neex. rek ka ma neex Cheikh soow neex soow. la de sañ nga ko de moom nee na biyee ko neex loolu na ko na sañ na ko Cheikh Sow neex soow la référence taalibe fal Fallou Mbacke bi kooku mooy doomi ajaratu Kumba Taal mi ni jooy ca noppee gunu ah seex nag imaam la ca daaga na Gunaas seex boo ko fekkee na Gunaas xam ne seex ku ànd ak i bokkam la boo ko fekkee Medina Gunaas xam ne ko ànd ak i bokkam la barke borom Touba waaye nag ah Moussa ne Moussa ne Moussa Moussa nag mooy borom sikkim bi waaw mooy bërëm sikkim bi Moussa waaw am na ñu koy jaawale ak jumaay waaye du jumaay Moussa la waaw kii dana ma ndax jumaay la ndax jumaay la ma ne ko Moussa la Moussa du jumaay da la Moussa la waaw. soo laa jënd waaw waaw. ñaata ngay jënd. 500. 500 loo koy doyee. dañ ciy ah dama lay laaj rek lan moo neex ci soowum seex Sow neex soow. alu moo la ci ah, ah, kenn mënu ci dara. sama jigéen benn ko baax sama jigéen na gaar bu mag. gaar bu mag. waaw loo ci soowum Cheikh ah, jaral ma bàyyi ay romb ñu bare. ñëw ba moom. ndax neex soow rek.